Euh, li nga xam ni euh, moom mooy euh, résultat yi ñuy daal di am waaye tamit yeneen discours <laughs> yi nga xam ni ñu ngi koy daal di jëlee ci yenn ñoo xam ne dañoo nekk leader ci yenn partie wala nekk aussi li nga xam ne nag moom moo di coalition nekk aussi li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, ay coalition ñoom it jaar nañuy joxe li nga xam ne nag moo seen gis-gis mën nañu dikk bu baax euh, ci réaction ki nga xam ne nag moo di Bougane Gueye Dany moom nag jàpp na ni anam bi nga xam ni moom la président daal di gisee li nga xam nag moo di kàddoom nekk na un discours de de de rassembleur nekk na discours boo xam daanaka dafa gën a boolewaat li nga xam ne nag moo di sénégalais waaye tamit moom jàpp na ni président actuellement daanaka jël na li nga xam ne nag moo di responsabilité maanaam solo mbubu. ki nga xam ne nag moo di le président de la république moom aussi aussi euh, yoo xam ne dañoo daal di euh, manqué si yenn euh, de vote yi moom jàpp ni loolee mën na leen daal di porter li nga xam ne nag moo di préjudice waaye tamit moom lu muy daal di déplorer mooy yenn service yoo xam ni dañoo daal di commencé di génne li nga xam ne nag moo di ay résultats wala di prédire li nga xam ne nag moo moo di victoire parti bi di euh, Pastef moom jàpp nañ loolee dañ koy euh, nasaki noo ci pour rek euh, gën a nasaxal li nga xam ne nag moo di xelub sénégalais yi nan nga jàngatee sortie bi nga xam ni njiital gëm sa bopp bokk aussi ci li nga xam nag moo di coalition sàmm sa kàddu ginnaaw bu mu daal di voté pële fële ci mu fi indi benn bi mhm. gis nga Bougane Gueye bu fi indi benn alibi. Mhm. benn alibi. Mhm. bu ko fi indi ñoom Bougane. Bougane moo def émission euh, Ndumbelaan barki démb. Ousmane Sonko def émission ak euh, Walfadjri. Bougane il était à xawma cent vingt six mille vues en direct usmaan Sonko nekk peut-être à cent un mille vues. Bougane ni nga rawee Ousmane Sonko ci vues yi. fexeel ba rawee noonu Ousmane Sonko ci bureau de vote. Ah. bu fi indi benn alibi. Barthélemy Diaz mi woon ci Barthélemy Diaz nekk ci ay deux cent quatre vingt six mille vues. Uh-huh. Ousmane Sonko mënul sax am cent cinquante mille vues. Uh-huh. en instantané en direct et en live. Uh-huh. kon yéen ça veut dire que ne yéen yéen a ëpp aura Ousmane Sonko yéen a ko ëpp audimat. léegi nag loolu ngeen doon wane ci seen vues yi ci seen nangam. dafa war a normalement feeñ ci. Euh, bureau de vote yi. Mhm. Ousmane Sonko bas déggal ki nga xamante ne moom moo di Bougane Gueye dani mhm. bi Ousmane Sonko waxee li mu waxee noonu keroog ca Rufisque. Mhm. Bougane dafa génn ne Sonko seeki la a perdu. moo tax moom muy wax comme nii. loolu nag bu mu xaar ba tey jii ne am na ñeneen ñoo xamante ne dañuy euh, passé ne Pastef dafay gañe amul wax ji wax ji mooy la ngeen doon wax walla li ngeen doon def. message bi ngeen doon faire passer ne Ousmane Sonko c'est qu'il a perdu. Euh, loolu na ngeen ko conforter tey ci biir bureau de vote yi. absolument bu dee bëgg ngeen seen crédibilité continuer. parce que normalement bu ñu la euh, nombre de personnes boobu si tu influent à ce point. ba nombre de personne boobu di la seetaan. loolu dafa war a ala kulli xaal. feeñ ci fii ci biir fi nga xamante ne moo di bañ gàcce bi. parce que cent mille personnes mënuñ la seetaan te mënoo am cinquante personnes yu la votel mhm. quand tu as mille personnes et quelques personnes cent yoo xamante ne ñu ngi lay seetaan en direct. Mhm. xanaa yooyu nga la waay dina am cent personnes yu la ci seetaan yu la ci kii. Mhm. deux cent mille personnes yu la seetaan en direct. non normalement yooyu moom dinga am mille personnes bu dee deux cent mille la di nga am mille yoo xamante ne. dinañu la votel le jour J. léegi nag gis nañu yéen euh, sàmm sa kàddu seen taxawaay. ak seen féete. fi ngeen féete par rapport ak résultat yi nga xamante ne moom moo nekk di génn. le message de Bougane Gueye Dany à l'endroit de ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. c'est ce qu'ils font tout le temps. ñoom nee nañu Bassirou moo baax. Ousmane Sonko moo bon. nee nañu Bassirou moo mat président Ousmane Sonko mais heureusement. parce que bu dee ñeen nangu ngeen ne Bassirou il est présidentiable. Uh-huh. nangu ngeen ne Bassirou c'est un bon président. Uh-huh. nangu ngeen ne Bassirou il a été équidistant. Uh-huh. te peut-être kon ñoom ñi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ak ki li nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. seen plan mu ngi nekk di marché te li nga xamante ne décision bu ñu jëloon la par rapport ak équidistant bi équidistance bi nga xamante ne président dina ko nekk. par rapport ak li nga xamante ne moom moo di. Euh, Euh, les les faits politiques wala les événements politiques. kon ñoom leur pari vraiment amal na leen njëriñ. parce que tax na sax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy c'est plus les leurs plus rudes adversaires. ñoom ñooy nekk di di di di di conforter wala di tagg le président de la république. Mhm. te je pense que ne ñoom mënuñ ko tagg tey dans trois ans. Mhm. ñu demaat élection ñu ne kooku dafa bon. Mhm. kon Bassirou Diomaye Faye normalement. bu ñu demaatee fii ak deux mille vingt neuf. Mhm. Euh, ñoom bugaan yi ñoom ñooy nekk son chargé de com. Mhm. ñoom ñooy nekk vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy dem campagnal pour mu mhm. nekkaat le président de la république du Sénégal waaw naan ko jiitewaat ñu comme ñoom ñëpp taxaw nañ nee nañu Basiru dafa baax ñoom ñëpp nee nañu Basiru ku baax la nee nañu Basiru ku ku ku yeeru la ku kii la kon kooku normalement warul leen ko opposé wu léegi nag ñoom dañuy bàyyi fële Bassirou di opposé au premier ministre ba te premier ministre ba nekkul président ba xaw ma nag lu muy demee. ah heureusement moom Bassirou moom. Mhm. Euh, Bassirou moom neex la na moom. ah vraiment mu doon lu lu lu doy waar alors euh, ba tey. Euh, Vito dañuy hmm. daal di des li nga xam ne moo di sorti euh, yenn euh, leaders yi di xaarandi aussi résultats yi commencé waat wàcc bu baax a baax. Hmm. fële nga xam ne moom mooy ca ca ca ci ci diaspora bi hmm. naam li nga xam ne nag moo di Sénégal daanaka ay simili rek moom moo des. pour tëj li nga xam ne nag Sénégal Koweït. Koweït dans le bureau de vote numéro un c'est Pastef qui est devant sur 69 inscrits 35 ont voté. ñoom ñoom dañoo yéex. foofu la ca Koweït. ñoom dañoo ah, yéex ah Sénégal ngi soog a joxe ne ko ñun ñun joxe nañ ko ba romb ci yeneen. Mhm. alors mais mais mais aussi Ibou cant ak ñeel na ko ah. waaw man moom situation bu ma fekkee ak café gi nii c'est c'est c'est c'est très important. Ibou il est bon. waaw il est bon. Mhm. alors euh, Vito sànq euh, ki nga xam ne moo di xalifa Ababacar Sall bu mu voté ba pare dafa am discours bu mu yëkkati euh, jëmale ko rek ci ordre mission yi nga xam ni ñenn ñi jagleel na leen ko pour nu mën a voté mhm. maanaam man mi nga xam ni maa dëkk fële ca Dagana bu ma bëggee voté bàyyi fi li nga xam nag moo liggéey bi day xaw a tàggatémbe may def defal li nga xam nag mooy ordre de mission euh, pour fu ma yónni couverture ma mën fa daal di voter mhm. de aussi euh, ñi nga xam tey ji ñoom ñooy euh, takkader yi ñoom it mën na leen defal li nga xam ne nag moo di ordre de mission fu nu daal di nekk pour rek surveiller bu baax a baax li nga xam ne nag moo di kaaraange gi nu mën fa daal di voter moom Khalifa Ababacar Sall daal dinay ñaawlu loolu bu baax a baax jàpp ne loolu dafa nekk benn stratégie bu le régime en place daal di teg pour rek sàcc li xam ne nag yi surtout fi nga xam ne mission yi jàpp na ni lan moo tax euh, Touba amul ordre de mission lan moo tax Saint-Louis amul ordre de mission moo tax nu choisir li nga xam na nag moo di Ndakaaru kase donc moom jàpp na actuellement mbir mi ab hold up lay daal di xeeñ ginnaaw ba nguur gi tegee li nga xam ne moo di ay ordre mission naam du lu bees yàgg na fi à chaque fois bu ñu waxee li nga xam ne nag mooy élection dafa am ñenn ñoo xam ni da koy defar pour nu mën a euh, def seen liggéey waaye aussi mën a accomplir li nga xam ne nag moo di seen devoir euh, citoyen nan nga jàngatee aussi gis-gisu nga xam ne nag moo di Khalifa Abacar Sall élection législative yu ni mel ay élection moom mënatul am Sénégal euh, te processus électoral bi bi mu commencé ba tey euh, defe naa ne Khalifa benn yoon laa ko mës sa gis mu génn mooy bi ñu euh, taalee li nga xamante ne moom moo nekk siège am ba mu génn def sa conférence de presse mais yii yëpp ay waxi politicien la mais ça marche plus ça n'a pas ça n'a jamais marché sax waxuma laa comme tey pour muy ñëw di marché pour tey jii nii. Mhm. l' essentiel moom mooy ñoom li waroon a nekk seen message mooy vraiment pousse nit ñi. Mhm. wala woo nit ñi ci ñu génn dem voté ji mais pas ay affaire u jéem a euh, naxasal wala jéem a euh, salteel wala mhm. jéem a def yooyu yooyu ça va pas marcher parce que ñoom ci seen bopp. depuis processus bi commencé ba léegi pour une première fois. defe naa ne ñoom ñëpp ils sont d' accord. ministre de l' intérieur. gisuma ku ko ŋàññi uh-huh. ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa DGE gisuma ku leen ŋàññi uh-huh. ñi nga xamante ne waa CDC gisuma ku leen ŋàññi uh-huh. ñëpp ñi nga xamante ne c'est en rapport vraiment ak euh, li lee nga xamante ne moom moo di élection yi gisuma kenn ku ci ŋàññ lenn depuis le début de de des des euh, peut-être de la campagne wala sax du processus donc ça dire que ne processus bu jaar yoon la. Mhm. yeneen yi nga xamante ne sax munoon na ko lënt lëntal. Mhm. indi ay rëq-rëq mooy peut-être lii di parrainage nee nañu parrainage existé wul. Mhm. ku nekk na na nga ñëw dem. par rapport à des élections tamit. anticiper euh, mu doon peut-être mbir ma nga xamante ne man parenage bi sax ak lu ñu anticiper anticiper élections yi. j'aurais été d'accord. que ñu ñëw ko parce que moo ñu doon gënal ñu am fii nii trente cinq wala quarante et un mhm. euh, mais depuis lors bu dul yooyu peut-être. benn rëq-rëq bi nga xamante ne mooy liste yu bare yi. Uh-huh. mais à part yu bare yi gisuma vraiment leneen loo xamante ne mën na faire baloter wala mën mën na indi njuuj njaaj ci élection yi. Uh-huh. Khalifa il parle de politique c'est un de la politique. Uh-huh. mais on sait bien que ne processus bi fi mu tàmbali ba fi mu yegg si nii. par rapport à des élections anticipées. Euh, président équidistance bi nga xamante ne jël na ko par rapport aux événements. Euh, bàyyi bi nga xamante ne mën naa ko wax sax bàyyi politique. Uh-huh. Euh, campagne bi ni mu déroulé depuis le début ba yegg si fii nii. Uh-huh. lépp dox ci jàmm même bu dee ñu ngi ci ñaawlu te du ma se te du ma euh, tàyyi di ko wax. Uh-huh. ñu ngi ñaawlu quelques événements de violence yi ci am. absolument mais à moom. Euh, yeneen yëpp a ngi si ay ordre de mission ak ordre de mhm. non mission ak ñoo ci bokk yem <laughs> Khalifa il fait juste de la politique mhm. mais ça va pas marcher on est on est on est on est loin devant ça quoi. très bien alors euh, dañuy daal di dikkaat si li nga xam ne nag moo di si résultat yi mhm. fële ci Afrique du Sud euh, Port Elizabeth bureau numéro un Pastef cent une voix les autres vingt quatre voix ba tey ci li nga xam ne nag moo di boobale fiche naam bind bi sew na lool alors bijou mën nga koo mën nga ko afficher comme ça nu gis bu baax a baax euh, résultat bi nga xam ni euh, moom moo daal di bàyyeekoo fële nga xam ni euh, moom mooy ci Afrique du Sud. Euh, euh, Port Elizabeth si euh, li nga xam ne nag moo di bureau bu njëkk bi parti bi di Pastef daanaka bu nu totaliser li nga xam ne nag moo di ay voix am mi ngi fa am lu tolloog cent une voix li nga xam ne nag moo di les autres maanaam yeneen entité ñoom ñëpp bu nu daal di xayma li nga xam ne nag moom lañ fa daal di am mi ngi toll ci vingt quatre voix Vito bind bi bind bi sew na lool xëy na yow nga tane ma si. indi ma alma alma alma alma <laughs> fii. bàyyi ma envoyé la ko si non sama téléphone dafa vide branché naa ko alma ma barkeelu tuuti. <laughs> man moom lii moom gisu gisu ma waaw bii mu ngi koy zoom sax très bien. Euh, comme ça alma ma barkeelu. acca <laughs> euh, barkeelu si. alma ma barkeelu. Mhm. waaw mais fi binduñu kii bi de. Afrique du Sud la. binduñu kii bi de. binduñu kii bi. Mhm. zéro yi waaw fii la fii la. waaw dikk mën nga si dikk man moom euh, bët bët yi neexul. Afrique Afrique du Sud ñu ne xaw ma entité ànd liggéey euh, ànd liggéey xaw ma zéro. Hmm. coalition coalition Sénégal kese zéro. Hmm. coalition naataange zéro euh, xaw ma lan. bindee sew sew parti unité xaw ma su bunt bi. zéro. Hmm. coalition jubbanti Sénégal zéro. Mhm. coalition ànd écologie xaw ma lan Sénégal